boo ma gisee may dox di dem ci état boo ma gisee may dox di dem politique boo ma gisee may dox di dem bu ma kenn laaj looy dox luy dooleel Macky Sall lay dox parce que nag wéet gore wéetala ko gore loolu la ngeen ñu jàngal yéen suñuy maam loolu ngeen ñu jàngal yéen suñuy bàyyi loolu ngeen ñu jàngal yéen suñuy ndiyaay wéet gore wéetala ko gore

man ko organiser pour yóbbu ko fañ ko war a yóbbu pour que véritablement moo am une réponse loolu dafa am solo ñu wax ko le lébu n'a jamais été un activiste lébu ku ko xam mosul nekk activiste wax rek pour wax mosul bof musul nekk mbiram lébu day taxaw wax ak effectivement buur du kontar buur

Tak ndomb lebu dañu xam ne waxe nañ dignité fayda ak détermination may terminer nak da ngeen ñu ñaax ñun ñi xamantene ne ñoo nek si nguur gi ba paré nek ay lebu bu nguur gi jexé dañuy delu effectivement si penc yi dellu ci tefes gi di wax ak effectivement suñu mbokk comme que da ngeen ñu ñaax nak amna droit ñaan len da ngeen ñu ñaax amna droit ñaan len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 seeni doom dañ soxla bu seeni doom soxlee bu leen leen jox solo dama dama dem teeru bay waxin la waxin la il est temps que li ñu si yenn aspect pas seulement sur des questions du foncier seulement nous nous au plan institutionnel aussi bu ma aussi déggin la ñu taxaw jox